léegi ma ñëw ci ci ci ci CNG bi parce que CNG bi gannaaw bi nga jógee ci combat boobu amoon nga ay sanctions yu la tegoon dafa mel ni teggi nañ ko. waaw sanctions yi euh, Birane Sène bu mu ñëwee dox na si ak équipe am ba ñu dindi ko. Ah, waaw Birane moo ko dindi. parce que nee na bépp lu fi nekkoon à part yëpp la ñuy ñu ajoo nag muy arbitre yeeg ñeneen ak dañ leen dindi que comme par indiwaat saison boo xam si musta am ci làmb te war na mun a ne parce que ni mu commencé nii su gënee jël motuwaayam ci CNG bi rek. bañ a bàyyi xel wala muy sóoraale lenn mun na ne lu mun a ne la parce que li mu dindi moom wàññi ko am na solo waaye lu gën a am solo rek moom it na am benn euh, comportement muy doxee am benn argument bu mu indi muy lan CNG boo xawee timide rek day xaw a métti ci yow. waaw gis na dafa xaw a timide non gisuma loolu quoi waaye damay dolli rek pour xam nga da ne ma sànni ci message waaw dama koy ñaax parce que ñun tamit bëgg nañ xaalis dëgg la naka la ñoo nekkal buñ la buñ la buñ la sóoraale wut bu ñu sóoraale woon. mais dindi na dindi na dindi na sanction yi. mais xaalis bi reliquat bi waxuñ ci dara. waaw reliquat bi nag moom ñi fa nekk ñoo ko waroon tegal ni mu demee ni ak nii comme que moom ñëw na am sanction yi dindi loolu. kon ñi fa nekkoon balaa ñu jël ay benn reliquat di ko jox promoteur bi waroon nañu woo promoteur bi ak mbëri ñu waxtaan ñu xool nu ñuy bi dina gis leneen lu dul lool parce que promoteur reliquat bi ñu ko jox amul ko benn njëriñ sonal ko déranger ko parce que bu nekkee loolu làmb jël lim ci am moom yàlla na yokk waaye sonal ko waaye dafa gënoon rafet rek ñu taaj ñu waxtaan ak ñun ci discipline laaj ñu ni mu demee defaraat bu waa image boobu noonu dina tax suñu rakk yi wala suñu mag yi war a dundaat leneen nañu ah ñi de nii lañ demoon ñu dal seen ko waaye rafetal nañ ñu ko nañ suuraal gën a defal lii ñoo ko moom sport bi ñun ñoo ko moom lii bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal muy jaagat ndox bi sax da ko yàq parce que dafay lekk foofu société la lamb société la ñu di ci ok ñu dund daf bëri moo ba ngay def yu mel noonu da nga koy gën a rafetal taaj ñëpp ñu toog waxtaane comme ni nga wooyee amateurs yi woowee ko promoteurs yi loolu am na solo kon ñun war na woo mbër yi amoon coow ak arbitre yi ñu toog waxtaan waaw. waaw ah, loolu moom loolu moom dañ ko ci rafetlu ndax bi mu ñëwee am na yu bëri yoo xamante ni moo ngi ci woon tegge na sanction yi delloo siwaat ñi nga xamante ni mooy arbitre yi mais boo boo boo amoon loo xamante ni bëggoon nga ko ci làmb ci wàllu mystique wala ci loo xamante ni mën nañ ko cee yokk te dindi woon nañ ko ci CNG dindi woon na ko ci mu loo xamante ni bëggoon nga ñu delloo siwaat ko lan lay doon. waaw maa ngi jéegoon tamit maa ngi jaalewaale waa Géejawaay ak Youssou Ndour moom ak euh, Balla Gaye leen jaale seen papp jooju wàññeeku yàlla na ko yàlla xaraajana yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yeewoo ajjana si maa ngi dégg ko rek Balla Gaye di wax loolu naan man sama yoon nekkul ci loolu waaye li ëpp solo rek mooy li nit ñi di bàyyi xel ci ñun tey Ama bala indi jaan ba beneen affaire la Balla Gaye Modou Lo dii litre beneen affaire la Ama Baldé yàlla mu sotti bi jël cëli cëli ñàkk jël fee jël wëyëng bi takkal poudre bi mu ñëw mu daw argument yëngal ok des fois mu takk laar xam nga takk wëyëng këriñ këriñ daa am ñoom loolu rek la ñuy seetaan ñibbi daa am moo leen indi am ñii dugg mbër indi ñii social mbër dañu ñëw social mbër mbër bi indi social ñun na. daan na bi moo taxoon ñu nañ ko fi dindi te léegi am nañu arène nationale boo xamante ni maanaam dex la. arène ah. nationale bee boo fa demoon 55 bëri ko ndox du feeñ. mu ngi rey mu ngi rey mbër yi bëri nag suuf gi ni mu bëree. soo demee ci entraîné wu. ku 100 mètres doo ko dolli. ma soo ko appaay ma demee trois fois damaa gën a bëgg xam nga boobu pare naa ko ndeysaan oh oh. oh. si non billaay walaay <laughs> liggéey dafa neex waaye daal loolu am na solo loolu soxla nañ ko biraan ñu ngi koy ñaaxaat ci loolu di ko sànni message bu ne ko ñun mbër yi daa ñoo xam ni loolu indi si làmb te seetlu loolu bu ñu dundee loolu ci làmb la làmb commencé am ay wàññeek sponsor yi di daw sponsor day bëgg yooyu image yooyu lay soxla kon image yooyu ni nga koy bàyyiwaat xel bu baax a baax. du suulu muy saxaar di jëm kaw nga sëgg ci. yàlla booy challenge daw saa ma jël affaire yëngal bu dee xam nga. tak challenge challenge xool stade tribune si woo di nga ree xam nga eh, bu xaayee ñor na de waaye ñor bi nag waaw noonu la demee waaw.